الحمد لله على نعمه الجليلة وآلائه العميمة وهباته الوافرة التي كلت الألسن عن تعدادها أو إحصائها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها wa salaatuhu wa salaamuhu ala saaxibi risalati alxaatima sayidina muhammadin subdati xalqihi ti kawnihi wa bahaai nuurihi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim أيها السادة الأجلاء والعلماء النبلاء ممثلي الهيئات والمنظمات الإسلامية والبيوتية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدءا نحمد الله تعالى an jamaana maratan uxra fi hadihi albuqaati almubaraka taxta riayatin wa shani isharati alxalifati alaam xaadimi alilmi walislaam xaaji ibrahim atala allahu baqaahu wa adaama ataahu samahata seydina sharif abdilmutalib unsal muntamina ila xadrati cheikhina tijaani wa ramyata nicmatin anama allahu biha ala albilaad saadat alwalidi albaar sidi muhammadul amin ñas muhaami duafa wa sanadi almalhufin alladi tahaabuhu shayaatinu alinsu waljinn jaala laahu lahu tawfiqa rafiqa darbihi wan najaaxa muntaha amali ayuha alxuduru alkarim nusji ilaykum asma ayati shukri wa taqdir ala talbiyatikum li hadihi daawati alislamiyati sanawiyati bi hadihi alkayfiya fa jasakum allahu an alislam wa an ummatihi xayra aljasa jaa xadiisu mawduina fi hada aam taxta unwaan al islaam wal adab li anna al adaba miftaaxu kulli xayrin mbokki jullit yu tedd yi fi dajee bàyyeekoo ci ay gox yu fasantikoo ak ci ay palaas yu wuute ci biir réew mi ak ci bitim réew ci diggante ay góor aki jigéen ëmb ay mag ak i ndaw boole ay xarit aki soppe dajale ay wóllëre ak i bokk lambo ay surafa aki ak i ay ulama u ak i ay muqaddam ak ay ak ay notable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 yonantu bi ne fu ngeen dajeeteeg ñoom su ngeen bëggee seen mbir baax jiital leen leen te bu leen leen jiitu muy surafaaw yi jiital ci suñu sang bu tedd bi sayiduna sharif abdul muttalib mi xalifaab cheikh na tijaani bokk ci jëmm yu tedd yi nga xam ne ku leen gis gis ak sopp la mën na cee defaree sa mbir ca gis googa àdduna ak àllaaxira bokk ca jëmm yu tedd ya doon maam xalifay junjune seen ñaari tànk ya fuñ ko wàccee wëcci fa dara palaas buñ wàcc luñ fa fekk ci ak dëng dana jubbantiku ki seen barke lu ñu fa fekk ci ak tag barke lu fa fekk ci ak tëju dana tijjeeku ki seen barke moo tax amam saara fi baladin illa aqaama bihi maa kaana min awadin fi dalika al baladi su ko nuyoo nuyu naa mbooleem xulafaa yi di ci jiital ki ñu yàlla féetale ñi nangu koo féetewoo lool ngir mbaxam ngir xam ngir ragal yàllaam njir li jaabaam matérielu lislaam la di jumtukaayu cheikh na tijaani kooku mooy alaaji ibrahima ñas li ko jaame yàlla yi yéene ci fan su doon fan luñ mënoon a joxe addiya la kon de dana ko bërile waaye nit boo ko yéenee loo ko mënta jox danga ko koy ñaanal ki ko ko mën a jox muy yàlla mi rabbul izzati jabaroot yal na ko yàlla jox fan ba mu doyal jariñ la suñu sag la bi gàmmu gi desee ñetti fan la ma wowal boppam wax man wax joo xam ne duma ko nettali kon suñ kilifa la goo xam ne suñu sag la suñu ndimbal la suñu tiitar la suñu kiira suñu kiiraange la nuyoo ma teg ko ci loxol suñu bàyyu tedd yii cheikh Mouhamadin il Bachir teg ko ci loxol suñu mag ju baax ji di taawu taaw alxaaji Ahmed Babacar teg ko ci loxol suñu magi bopp suñu sëriñ Papa Khalifa Niass moo njëkk ci gàmmu gi at mu jot bu desee ñaari fan lay ñëwal boppam bu fi ñëwatee rek déwén la ñooñu timit nuyoo yooyu ma teg ci ñoom bëgg naa ñu yëkkatil ñu ko ba mu yegg ci Cheikh Ahmed Tidiane si al maktuum yóbbul ñu nuyoo ba mu yegg ci Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim yóbbul ñu ko ba mu yegg ci Serigne Sidi maxtar Mbàkke bisu tey bii lañ fa demoon mu teeru ñu teral ñu waaye yóbbul ñu ko ba mu yegg ci si Ahmed Tidiane Seck yóbbul ñu ko ci suñu mbokki laayeen yi di suñu njaatige maam Abdoulaye caw yóbbul ñu ko Sokone yóbbul ñu ko Louga yóbbul ñu ko tabaarakallaahu Njaasaan yóbbul ñu ko ci mbooleem këru diine yi suñu bàyyi leer ya nekk suñu maami leer yi di maami leer yoo xam ne ku leen sut tànk ñu sut la aliwa man ngaa dem fu ñu demut boo ñëwee ñuy wax la fa loo xamut moo tax kon la faras daq waxoon ulaayika abaa'i fa jinaa bi mislihimu ida jamaat naa yaa jëriirul majaami' suñu leen nuyoo nuyu suñu bàyyi bopp suñu xarit di suñu ndimbal ci lépp lépp lu ñuy dugg bu laajee xelaat bu ñu taraasalee ci xelaatam buñ ca sóoboo am ca ndam lépp lu ñuy dugg bu laajee alal bu yëkkatee ba def ca la ñuy soxla lépp dana ko matee kooku mooy Seydi Mouhamadul Amin Niass di jëmm ju baax joo xam ne kuy wax ak mbaaxam sax léegi tey nga baax su ma ko tuddee sama xel ba waxoon karimun mata am daxu am daxu wal waraa ma'i wa ida ma lumtu wax di yal na yàlla guddal fanam defal ko le ko baqiita baqaa ad dëhri yaa kahfa ahlihi wa hadha du'aun lil bariyati shamilu su ma ko nuyoo nuyu ñi ñu jagleel jàng yi di ñaan leer nekkoon jëwriñu maam Khalifa ñas kii tudd tafsir Abdou Silla ca kër ma ndongo bañ ko dencee bàyyi alaaji mu ndaw mii nitu yàlla ñëw na ca xabroom ba di ko siyaara wax mbooloo mam àndatoon nag ne leen xawma yéen ci lu ngeen nekk de mais Abdou Sylla mii mi ngi ci jàmm maa ngi ko gis nii mi ngi ci biir xabru bi di ree moo tax gàmm gi ñëpp bëgg na ñëpp a ngi ak maam Aliou Thiam muy maam Alaaji Aliou Thiam mi maam xalifa sampoon siin moo tuubal séeréer yi ba mu fa ñëwagul nit mën naa julli ñu ne ko buubal sa julli gi tey alhamdulilahi rabbil alamina la fay jàkka la fay jumaa ña julli di fa jàng alquran di fa wasifa grâce maam alaaji Aliou Thiam nuyu fédération bi yàlla boole maag ñoom ñi ndaw yu amul morom di innahum fityatun yàlla da ko bañ ba nakkiral ko te nakiira moom luñ ko nettali mu am rek mën naa am ci ñeneen sëñ daara Seex Moodu ne mooy luy mooy la siiw ca turuwa te kenn jagoowut ko walis moromam ma kon innahum fidyatun lañ amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan yàlla defal leen wa rabatna ala qulubihim lu ngeen ci mbaax ci teraanga ci taxawaay ci rafetaay ñoom fédération bi la ànd ak jëwriñ ju amul morom bi Aliou ñaan Modou Ndiaye ak ña leen cay jàppale ba ci baas bi tiim ñu ay xale yu bokk ci fédération bi di ca liggéeyee ñoo dem indil ko seen bopp benn dërëm joxewuma ko ci te loolu lépp ñoo ci jàpp kon fédération mënuma leen a fay man maay mbaxana ma ca jëmm ja boppam jëmm koy mën a sol kon ñoom ñooy jëmm ja may mbaxana ma ngeen may gis ta fekk lépp ñoom ajjuma ju jot ñu tëj seen cantine yi ñëw ci jumaa ji ñu ànd ak ñoom def xadaratul jumaa def wasifa julli timis julli gee def ay dog bokk teg reer yi ñi reer ñaanalante ba ci ba ajjuma ji del siwaat kon ay ndaw lañ yal na yàlla def leen mag yal na yàlla yàlla dolli leen te yàlla dooleel leen nuyu sama dëkkandoor yi jàpp naa ne man may ki gën ay dëkkandoor dëkkandoor yoo xam ne su ma amee xewu toll nii tànt bu toll nii nit ñi fi nekk soo ko doon seet dana mat presque dix mille personnes ñi génn seen kër yi dalal leen togg seeni ñam jox leen ko ku fi nekk sax sa kër bu amul gan nga mer bu déwénee jox ma ci gan yi ba ñooy teral gan ña ba gan ñooña ca bu ca déwén caa ba nañ leen a dalal ñu dem ca kër gañ leen dalaloon lu ma ko may dëkkandoor yu baax yee ngeen gis leen mënuma leen a fay jagleel nuyoo mbooleem taalibe yi fu ñu mun di bàyyeekoo xarit yi soppe yi muqaddam yi fédération yi fédéré ci kër maam Khalifa ci biir dëkk bi ak ñi nekk Banjul ak ña nekk bitim réew te imaam Moustapha Thiam dana jaar ci seen tur ak ñu jàpp ci gàmmu gi ba mel nii nuyu bu baax ñi def waxtaan yi te buñ ci yemoon doy na di al ustaas Aliou Mbay ku am caf nga ci xam-xam yëg nga ne waxam ji saf na xam-xam sëriñ daara Chérif caam waxtaanam wi amul morom jàpp na ne gudd na mais lu gudd la bokk liñ ci jublu nag mooy yéen muqaddam yi génn àdduna bàyyi seen doom yi dañoo war a yëgal seen doom yi ne seen bàyyi ndono lañ leen bàyyi te ndono dañ koy sàmm luñ koy sàmmee du sant du askan la koy sàmm mooy xam-xam kon daaw ñaari doomi muqaddam lañ jëloon ren jël na ñaari doomi muqaddam bu dee déwénee yéen doomi muqaddam yi préparé leen de dangay toog ñu woola rek ne yaay def waxtaan bi pour ñëw nag ci mawdoox bi mooy lislaam ak yar ndax jamono ji ñuy dund ku nekk ci ñun yëg nga ñàkk yar gi ci njaboot gi ñàkk yar gi siiw na ba boo dégloo dégg ko ñàkk yar gi fés na ci comportement yi ci cox yi ak wateef yi waaye ñàkk yar gi tamit tasaaroo na ci jëf yi ak ci jëflante yi te nit ku mun di doon soo génnee yar ci moom rek mu nekk di bàyyi ma dara teqaliwut nit ak ak ak bàyyi ma lu dul yar ku yar nekk ci yow ngay nit ku nite ku nocc ci yow ab yar ngay mala jamono ji nag ñu bari nocc nañ ci ñoom ak yar moo tax jëmm ja jëmmi nit lañ mais jikko ja jikkoy bàyyi ba la ñenn ñi ngi yore jikkoy bàyyi ma bu ñuy tuddee golo fu ñu yendu mbaa ñu fanaan fa yàq rek fu ñu yendu yàq bokk fu ñu yendu yàq alal fu ñu fu ñu yendu yàq askan fu ñu yendu yàq daraja ak liggéey bu baax bi fi mag ñi bàyyi woon kooka ku ko rey rey nga golo jëmm ja nit waaye jikko ja jikkoy golo la am ci ñoo xam ne nocci nañ ci ñoom ak yar ba léegi dañoo yore jikkoy kaña kaña nag moom sàcc rek sa jóorab gerte bi foo ko jóor lu mu ruqi-ruqi mu sàcc ko dugal ko ci compte banque gémmañam gi la ca xajul mu dugal ko ci gont compte banque ay pax mooy ñiy sàcc alal juñ leen dénk di ko rawale ci compte yi ci biir réew mi compte ya nekk bitim réew kooka mooy kaña am ci nit ñi ñu ñu nocc ci ñoom ak yar mujj nañ yore ji koy bëy fu ñu yendu lakkal nit ci ku dëkk ak ñoom ñi tànqal la coow rek ku dëkk ak ñoom ñi lëjal la dañoo bari bruit soo dëkkee ñoom ci appartement bruit ba rey la nga dëkk ñoom ci quartier bi bruit ba rey la fu ñu toll ñu ngi déranger nit ñi rey rey nga bëy ku rey bëy rey nga leen am ci nag ñoo ñoo gën a bari ñu yor jikkoy xar jikkoy xar mooy lan mooy ku jëmut fenn kanaa foo ko jëmale loo ko woo mu ne boo yàkkamtewut xaar ma ci bopp koñ bi maa ngi génn soo yàkkamtee may ma tuuti ma sol sama dàll yi foo jëm rek moom foofu la jëm jëmut fenn te loolu lañ bëri le ñi ca gën a yées nag mooy ñu yore jikkooy nag nag moom jame rek bëri tey ci suñu réew mi mënuloo dugg semaine te dégguloo rey nañ nit ci rey gu ñàkk solo gu amul benn njariñ ci kaasu ataaya ci maanaam benn méego cigarette ci paas ak yaa ma deseel juróom delloo naa laag paasuloo paasuma ñi joxe ca faat sa bakkan ñooñu ku leen rey rey nga nag jikko yi yépp ma wax mu tasaaroo ci nit ñi ba yar génnee ki ñoom ñoom la alquran di ju ñu ne in humo illa kal an'ami ba ci yàgg mu ne bal hum addalu in humo illa kal an'am ba ko yàlla wax yàgg na de billaahi ñooña daal dul nuñu dara lu dul ay mala ba mu ne ay mala lañ ñi fokkoon lu sore sori la ndeke yegg nañ ci tey jamono jii jëmmi nit ji koy mala te yar ci boppam mooy fondement wu bépp yiw bâtiment boo bëgg tabax te fondation ba nekkul fondement wu yar kaw màbb ki ñu ngi ko doon tabaxal ku bëgg a tabax bâtiment wu xam-xam fondation ba nekkul yar da ci alaku alaka ci ku bëgg a tabax koom-koom fondation ba nekkul yar dana mabbu ci sa kaw mabbaale ci nit ñi ku bëgg a tabax sante mbaa nga bëgg a tabax jàmm mbaa nga bëgg a tabax dal walla nga bëgg tabax social lii lépp bu nekkul ci fondement yar rekk moo tax addi ba di wax ne al adabu asaasu kulli xayrin yar mooy fondation yu bépp yiw bâtiment wu yiw boo bëgg a tabax jëlal fondation ba nga def ko yar bu ko yar lalu rekk dana yàqu moo taxoon yonent bi daan wax waajur yi mayuñu seen doom yi kado bu gën a cher yar leen ku am doom bëgg koo may cadeau bi gën a kadoob yar soo ko xasee yar lu mënoon a ñàkk yar ba jox ko ko soo ko xañee yar lu mënoon a am yar ba ñàkk yar ga xañ ko ko looloo taxoon suñ mag ñi musuñoo xiir ci parapareel seen doom mais dañoo xiiroon ci parapare seen doom ñun nag dangay ngay jéem a parapareel say doom ay kër yu dul jeex jëndal naa leen ay terrain place sàngam bàyyi naa fi ay compte banque bàyyi naa fi nangam di ko prépareel kuñ préparé fu muy mujj kuñ préparé fële ci àll ba mooy ñëw jariñoo li nga prépareel ki nga préparé wutoon ñaata kër fi nekkoon ci digg ndakaaru ay patron moomoon ko bàyyee ko ay doom yuñ ko prépareel te préparé wuñ leen am ñuñ préparé ca bawal ñii ñi préparé leen ca jolof ñii ñi préparé leen ca saalum ñoo mujj ñëw jël kër yooye ñi préparé ñuñ préparé wut moo tax kon diina ji diiney la waaye nekkul diiney prépareel sa doom soo ko defee du fi bàyyi dara loo fi bàyyi mu yàqu ko da nga fiy tabax étage bàyyee ko ca mu fanaanoo fa di njaaloo mbaa mu dem def ko ay bistoron di ñaaj di jaay sàngara mbaa mu koy naan mbaa mu koy luye ci loo xamee ne ni lam koy def yàlla gërëmut ca dara yaa ko ko prépareel te préparé huloo ko du sotti moo tax Aliyu daan wax ne yar leen seen doom yi te jàngal leen bu leen leen jàngal te yaru leen leen bu leen leen yar te jàngalu leen leen ñu ne ko lu tax mu ne koo yar te jàngaluloo ko dof lay doon koo jàngal te yaruloo ko wuyu lay doon ñaar yi benn baaxut ci ab wuyu ak ab dof bu ñu feesee ci am pénc pénc ma yàqu boroom xam-xam bu yaruwut yàq rek dana alag boppam alagaale ñu bari waaye ku yaru ku amul xam-xam dof lay doon xam bu ragalut yàlla mu soppi boppam mbëtt soppi ko gunóor di ko dundee bu soppi bu dajee nag borom alal ju ragalut yàlla tamit mu def ko mbaam di ko takk rek di ko jariñoo kon saa yoo yaroo te jànguloo matérielu borom xam-xam nga mbaa ngay matérielu borom alal ñaar ñii rek ñoo lay jariñoo boobu nag li bon bon moo tene am xam-xam te yaruwuloo ndax soo amee xam-xam te yaruwuloo da ngay yàq sa bopp yàqaale ñu bari soo yaroo te amoo xam-xam kaw dong lay xem moo tax seriñ tuubaa xaadimu rasul di wax ne wa kasratul ilmi bi gayri adabi jaalibatun ilal aza wa taabi xam-xam bu bari bu àndu tag yar dafay bijjal nit ki yóbbu ko ci lor dafay bijjal nit ki yóbbu ko ci coono dana sonn sonale àdduna bi li fi gis yépp tey ci ay guerre yuy tàkk lii nga mën koo seetaan ci ay image lii nga koy liir ci ay surno lii nga koy seetaan ci ay télévision boo toppee tànk ba lépp yarul la noo bëgg a tukkal àdduna su ko defee nag kon te boo yaroo te amuloo xam-xam foo wàcc xam-xam fat la ibnu abbas mos naa dégg benn waaye mu ne ana garib man dama tumuranke ibnu abbas ne ko bu ko waxati algaribu man laa adaba la ki amul yar mooy ki tumuranke waaye ki xas am yar tumuranke to ndax boo wàccee ci am réew ànd ak yar yar baa lay utal njaatige ñàkk xam-xam am yar yar ba xëccal la ah, maanaam xam-xam ba jox la ko nga wàcc ci réew amuloo dara ba tey yar ba teetale ba jox la xam ba jox la koom-koom kon yar loo ñàkk mën na la koo jox moo tax lu nit uti utee ko ci yar te amut ko rek dafa faa amut waaye koy doxee yar loo uti am ko te boo yaroo dangay sakkan boo yaroo di mag danga nga sakkan bëriñ boo yaroo di doom nekk xale da nga sakkanle bëri ay baay ndax boo xasee yaru mbooleem baay yépp ku la mat baay mbaa mu mat la yaay yaayoo la ñii baayoo la ku bëri baay bëri ay yaay kenn du la ñeme soo nekkee soo nekkee tamit mag yàlla may la nga nekk nga nekk ku yaru da ngay bëri njaboot ñi nga mën a jur yépp dañ lay jox dañ lay xool baay looloo daloon sayduna muhammad ne doom ja muy xaasu mu génn àdduna aasi ibnu waayil na jërut noono bu deexee liggéeyam yépp yàqu yàlla ne ko kii yëgut li ma defal yow bàyyi ju yaru nga xeet wi yépp yaay seen baay ndax innaa ataynaaka al kawsar kon ku ku am lu toll ni juróom-ñaari milliards nga nekk di seen baay waxuma la nga jiitu ca yonantu yag malaaka yag rawxaane yu ne yépp yaay seen kilifa wéetatoo moo tax kooku rek mooy ki ñàkk njaboot kon boo yaruwut nga nekk xale ci biir dëkk bi bu buñ lay présenté dañuy wax ne doomi diw la ak diw waaye boo baaxee nga yaru dañuy wax ne doomu dëkk bi la ñeen nga ne doomi gox bi la ñeen nga ne doomi réew mi la ku bëri baay ngay doon kon ku bëri yaay ngay doon boo yaroo góor ak yàlla ga maam xalifa dafa daan wax ne ñaari tànk ku ko solee ñaari dàll soo ko xamut dafa xamut waaye boo xamee rek nga xam ko mu ne jëlal sa tànkam ndeyjoor bile sol ca dàllu yar jël sa tànkam càmmooy bile sol ca dàllu dëggu soo leen doxee ñoom ñaar loo huti xam ko wal yashabi sidqa wal aadaaba innahuma la yusilaani ilal oliya bila taabi ku sol sa tànkam ndeyjoor bi dàllu yar sa tànkam càmmooy bi dàllu dëggu boo hutee xam-xam boo hutee koom-koom am ko soo ut soo doxee ci jàmm uti ko am ko soo utee xarit am ko loo uti rek bu amut dafa faa amut waaye lu am danga ca am kon wal yashabi sidqa wal aadaaba innahuma la yusilaani ilal ulya bila taabi la góor ak yàlla ga waxoon maam xalifa ñes su ko defee moom yar moomu tamit mooy cadeau bi gën a cher buy bàyyi di jox doomam yar ku ko yàlla jox ci la ñuy wax ne yow nag yaay ki am bénéfice bu mag a mag a mag a mag yaay koo xamee na nii tabaarakallaahu sa mbir dootul suufeeti dafay yëkkatiku rekk jëm kaw waaye boo ñàkkee yar loo tabaxoon mu yëkkatiku dana mujj màbbu dana mujj raase dana mujj tamit dem ca suuf yar moomu nag ma wax war a tax yàlla fanweeri aaya ak ñaar moo nekk ci alquran yuy digle yar boo jëlee hadis yonantu bi yépp juróom fukki hadis ak ñett moom la yonantu bi wax ci wàllu yar soo jëlee asaarul ilmi yi ci ñëw fukki asar ak ñeent moo nekk ci wàllu yar boroom xam-xam ya wax ko kon yar am na solo waaye ni mu amee solo ni la jafe ba muy jafe ci jamono ju ne rawat jamono ji ñu toll ku yàlla may njaboot mu yem ci loxo yar baax ni ko bëggee bul bàkku yàlla la dimbale waaye baax le yombut ci ji jamono baax taxut a baax le man ngaa baax lool bañ naw la ci mbaax waaye taxut sa njaboot gi baax bàyyi nga fi ñoo xam ne kenn mënul leen a wone loo tabaxoon yàq nañ ko fu ñuy yendu sa gàcce yegg fa man ngaa nekk ci quartier ñi respecté la mbokk yi waaye kañ lay sa suturay xawee ko keroog ba nga màggalee sa dooma fi def lii sa dooma fi wax lii sa dooma fi jël lii sa dooma fi jaxase lii ku la yabutoon yab la te loolu du jeex kon njar mosta dañ di jafe rawatina suñ jamono jii lu tax yar jafe ñeenti yëf yàlla dafa ñoo nattu suñ jamono ji ku yàlla jox doom bu yàlla defarul sa xol yàlla mi la jox doom gi sax bëgg doom lool ba mu gënal la yàlla mi la ko may yuhibbunahum ka hubbillah sa doom jooja bëgg gi ko bëgg a tax nga ne xelaatuma di ko yóbbu ci daara ñu koy dóor muy jooy sama doom du jooy danga bokk ak nit ndey ak baay seen ànd ga rafet kañ lay yàqu keroog ba ngeen amee njaboot moo dóor sama doom ji moo ko wax lii ngeen wax ca ba seen diggante ba yàqu sëy nga am jàmm ci kër gi mu sedd lool kenn ku ne màggale doom ya jotee ba seen yaay ya jotee ca seen baay doxee ca jotee ca loola lépp boo toppee tànk ba bëgg doom la nga bëgg ko ne du jooy ku ko nar a jooyloo lu nekk nekk sa mbokk ak loo xaritoog moom mën nga caa jaaree yàq mbokk ga nga ne sama doom gi dama ko bëgg du xiif sama doom dama koo bëgg du mar sama doom dama koo bëgg du rafle koo jubbanti ngir bëgg gi ko bëgg te ku la ko jubbanti nga joteeg moom yàlla ne leen ronkañ nag faw mu tuuru bu ko sa doom ji tuuru yaa koy tuur sa doom ji nga mañ a jooyloo bu màggee jooyloo la ñaata doom fi jooyloo seen baay ñaata doom tey ñoo fi jooyloo seen yaay mu ne sa doom ji nga bañ mu rafle bu màggee rafleel la sa doom ji nga doon bañ mu xiif su màggee xiif loo la sa doom ji doon bañ mu dëkk ci yéen moom bu demee ba am jël appartement dëkk ak soxnaam beddeeku la léegi jamono ji jamonoy appartement la koo fi takk boo ñàkkee fu la mu ne wutal ma appartement su ko defee nga bàyyi sa bàyyi fële mu ne maire bi dañoo bëri bruit mënumaa dëkk ak ñoom yow tamit nga ñàkk fayda dem ànd ci ak ñoom man ki sa goro yi loo mënul ki sa bàyyi man ki sa goro yi loo mënut ki sa yaay say goro yaa ngi lay tagg te sa yaay mi ngi lay rëbb ak sa baay du jeex loolu lépp bëgg dooma ko ba ñu yàlla nattoo ci bëgg doom ñaareel ba li tax yar jafe kenn amatul tal say doom bu xëy bu bu góor xëyee takk ay dàllam wuti bu jigéen xëyee takk ay dàllam moom tamit ne ñaari loxo mooy takk tubay ñaari loxoy takk séer fifty fifty nga am doom fii ci kër gi man ngaa toog weer doo toog ak moom trente minutes man ngaa toog weer doo toog sa doom ji lu mat dix minutes doom ji xamatul la parce que yow ci sa bopp hittihoo ko da ngay xëyi jabar ji xëyi ba la ngeen a ñëw guddi ba ngeen a ñëw fekk xale yi nelaw nañ mbaa bu ñu teg reer ba fekk ña ngay bébbali kooku fooy amee temps foo ko yare waaw nga bëgg nit ba mu jéggi dayo te yow taloo ko kooku beneen problème la ñaareel bi tamit bi nga ko bëggee te taloo ko yàlla nattuñu ci ji jamono ji bu njëkk nga melle ni la mel melle léegi nag yow ni ngay melle ci kër gi defar ba ne baax na nga génn ci mbedd mi ñu yàqu ko nga génn mu dem ci école bi ñu yàqu ko mu génn dem ci internet bi nga indi muy xëy di connecté wu rek ba dugg ci loo xam ne mën na koo yàq te jamono jii ñi ñi am connexion ñëpp wala quatre-vingt-dix pour cent yi ñoom ci seen bopp amatuñ connexion connecté tuñ mën nga caa nekk di bës di xool rek bës di xool ku la nuyu doo ko dégg connexion baa ngi dox mais yow sa connexion yi baaxatul te lii ma wax xam ngeen ko ci lii ngay nekk kon jamonoy internet lañ nekk indi nga li ci kër gi loo xam ne mu ngi lay yàq mi ngi lay yàqal te yëgoo ci dara ñiy dugg ci ay siit dugg ci loo xam ne tey dangay wax ne xale bii mujj juddu fu mu xamee lii ñett ñeenteel bi li tax yar jafe yàlla dañoo nattu ku la mujj juddu moo la gën a xeew yow bëgg a yar teg ko ci yoon bu la gën a xeew foo ko yare moo la gën a yeewu gën na laa yeew mën nañ nekk ci kër gi def lu jombe am nañ communication seeni bët dañuy xoolante rek xam li ñuy wax yow yaa ngi seen digg bi xamoo ca dara kenn ku nekk jug dem am nañ communication seen façon langage dangay ngay toog yow di xaar sa tur yu fekkee wutee nañ la waleen tur ana ma xulli ngay xulli rek fekk yow mii la ñuy wax du jeex kon am nañ communication ci bët am ay communication ci seeni langage yoo xam ne moom la ñu wante yow da toog rek fekk ñoom ña ngi say wax te fekk xamoo ca dara am tamit tabaarakalaaw ak te seen comportement da ngay yor doom mu xëy tàggu damay dem ca école ba col colaay bu yiw nga sant ko félicité ko ne jigéen nii lay solo fekk mi ngi gàddu benn saak su génnee rek la mu waddoo lay jël dugal ko ci biir saak ba yow kër gi boo dajee woon ak moom ca marché ba xeex ak moom fekk nax na la bu yàgg ta xamoo ci dara kon yàlla ñu nattu ba ñu ñuy yar dañ ñoo gën a xeewu bu njëkk ba nag ña doon yar dañoo gënoon a xeewu ña ñu yar waaye yow ki ngay yar bu la gënee xeewu lim man ci internet mënoo ko ci fa mu mën a dugg xamoo ko su boobaa lu koy yàq dafay bari waaye ala kulli xaal yonent bi tracé na juróom-ñeent jaar yar sa doom dana yomb bi ci njëkk doom ji nga bëgg a yar d'abord da nga koy utal yaay ju baax gannaaw ba nga nekkee di bàyyi ju baax da war a wut yaay ju baax ndax ku nekku am jiwu wu baax da koy sotti ci suuf su baax ndax nga mën a am gàncax gu baax waaye boo amee jiwu bu baax sotti ko ci suuf su bon gàncax gu bon ngay am alquran bàyyiloo ci xel nit ñi wal baladu tayyib nabaatu bi izni rab bi lum ca teg bu ca xemoon doy na mu ne wallazi sax laa yaxruju illaa nakidan yonent bi insisté ca di wax ne taxayaru li nutafikum fa innal uruqa dasaasu seet leen fi ngeen ni denc seen toqantal mëniyu yi yonentooy wax ñu ne ko lu tax mu ne siddiit day wàlle soo jëlee tey takk soxna soo xam ne ba àdduna sosoo ba léegi néeg ba mu nekk fecc lañ leen xamee faw nga am doomi fecc kat xam ne bi àdduna sosoo ba léegi fen rek te fen si la mënoo koo ñàkk am doom joo xam ne tappale rek njaboot ga loolu lañ xamee nga dugg ca defaloo la yonent bi noonu tax xayyaroo li nutafikum maam xalifa ne bu ngeen gisatee meññent mu baax bu leen ko yéem yéem leen jiw wa te ngeen yéem suusa ko meññ ida bada tiibu simaar yi fa innama tiibu simaar yi dalilu tiibil musmiri loolu arab yi sax mënuñu koo wax ngir rafet ga léegi nag ñun dañuy takk jabar foo takkee soxna si foo ko xamee nga ne ah ci warsab bi laa ko xamee jabari warsab ma ne mbaa doo ci am doom ju sob yi sob lool jabari facebook jabari warsab moo tax jamono ji ko la mu ngi gudd gën laa sob bu njëkk ba da nga ne damay bëgg soxna dellu ci sa sa papa mi njëkk a nekk dellu ci sa yaay mi njëkk a nekk soxna ki njëkk a nekk soxna moo xam ki mat soxna ki njëkk nekk jëkkër mooy xam ki mat jëkkër mun na demal seeti sa kër nangam demal seeti fa soxna nangam nga dem ba ne doy na ma mu ne bàyyil ma dem seeti ko am baatin mu defal la ko listixaar ndax seen wërsëg ya dëppoo na loola boo ci duggee da nga cee am résultat bu baax mais yow sa bët yu gàtt yi nga foo ne xam nga lu ne te xamoo dara te ku la mujj a judd foo ne xam na àdduna jàpp ne paa ñoo déplacé nañ maanaam dépassé nañ jamono ji fekk ñoom fi ñu toog la ñuy gis yow xamoo genn wàll fekk yaa xamul dara rek waaye koo ki gis bu xëyee dugg ci kàmb gu mënta génn xulli ay bëtam nag foo mën a nekk nag ànd ci ak moom yow jànguloo doxuloo fooy xamee àdduna adduna ku la ci gën a yàgg gën la cee pratiquer di gën la ci dund ay coono moo la ci gën a am xibra waaye yow nga judd barki dee mun ne yaa gën a xam ku ñu wax nga ne xamul dara yow yaa ci xam àdduna foo nekk yaa dul jeex foo toll jamono ji nekk ci jàmm ba xëy sa doom dugal la ci kàmb goo mënta génnati la nga xam lépp nga def ko ca te lépp ñàkk yar ak baax deuxièmement boo takkee soxna si doom yombut doom ju baax yombul takk nga fi nga war a takkee yow mel nga ni nga war a mel yonentu bi ne bul fàtte vaccination ba keroog bañ la mayee soxna si bala ngaa wéet ak moom jàppal mu jàpp na yonentu ba digaloon Fatima ak Aïcha julli ñaar rakka ñaan ne suñ sëy bii yàlla nañ si yàlla may njaboot gu barke ndax nit ñaa ngi koy def mu ne tamit bala ngaa ànd ak soxna sa defal waxsination ba yow yàlla kii nga wërsëgal ma yàlla bu ci seytaane am cër allahuma jannib naa wa jannibi shaytaan amma rasaqtana léegi nag da ngay xëy ànd ak sa soxna yow la war a jàng sax xam nga ko doom juddu ca fekk shaytaan ko laxasoo ca biiru yaay ba ku koy mën a defar moo tax alquran ne washarikuhum fil amwali loolu ma ngi kii ànd soxnaam te vaccination bi yonentu bi jàngale defu ko kooka seytaane koy laxasu ca biiru yaay ja moo tax Ali ibn Abi toog na ñu indil ko benn xale ci soo ne ko damaa bëgg nga yaral ma ko Aliou ne ko kii yàqu na mënuma koo defar mu ne ko mais mi ngi nàmp feragut mu ne ko kenn mënu koo defar li may mën a mën a yar dara laa ci mënut da ngaa tardé ba nga demee ba bëgg a takk soxna nga waroon a ñëw laaj ma ban jigéen lañ war a takk lan nga war a jàng bala ngaa wéet moom bu doom ji juddoo nuñ koy war a defal yëpp passé na kenn mënu koo dabaatal kon demal seeti keneen mais kii mënuma ma koo yar soxna sa dem ba am doom ci seytaane dafa am doole day daw ci jëmmi doomu aadama ni dereetam di dawee ci jëmmam yoonu bee ko wax ma ngay dàq seytaane mu ne noddal ci noppu ndeyjoor ba lépp dàq seytaane boo ca bàyyeekoo li xaamal ca nopp càmmooy ba su bis ba dellu see nga am xar boo leen rendil ko rendil ko deret tuur ko Malik ne boo ko amul ca semaine bu njëkk ba aj ko ba mu del siwaat di fukki fan ak ñeent soo ko amul mu ne ajaat ko ba ñaar fukki fan ak benn soo ca yeggee foofa amoo nag moom joxel tur rek moom bu màggee la mu njëkk liggéey mu ren di ca am xar ndax yonent bi ne kullu mawludin marhunun bi haqiqatihi ngir loolu ni mu amee doole nga jël kawar ga wat ko bam set wecc taxante ko ak wurus seet ku néew doole lam toll ci seefaa nga sarax ko ko boo ko gam-gamlee bu ba ba sëqul ba ëpp ñàkkul sëq mille francs lay tollook nga saraxe ko lii lépp yàlla ngi la cay teg ci njàngaleem yonent bi di la préparel xale bi yii yëpp jaaratuñ ca mu ne tamit boo demee bay tudd doom ji tuddee ko tur wu rafet lu yonent bi li mu sopp ci ay tur yu ñaaw kenn xamut ni mu toll ñii ay mbokkam lañ seen tudd xar bu ji firi xare mu ne ëpp naa def ñii ay soxnaam lañ noo tudd mu ne juwayru mu soppi turoon tuddee naa ko zeynabu ñii mu tuddee leen baratu demeet ba soxna yi ku ci ñëw tur wa ñaaw rek yonent bi soppi ko mu ne ndax tur wu ñaaw day topp nit ki ba ci bàmmeel da koy topp ba àllaaxira innakum sa na yowma alqiyaama bi asmaikum wa asmaai abaikum rafetal leen seen tur qiyaamee ci seen tur yi la leen yàlla di hooxee buñ la wooyee yowmal xiyaam nag sa tur wa ñaaw nooy wax tur wu rafet dafa am solo nu ñu la tuddee al amin muy tekki ku wóor ki am nu googa mën na laa topp ci àdduna muy sécurité man laa topp ci barsaq man laa topp ba dugal la aljana waaye noo tudd nga ne naaru safara sa dund gi yëpp safara lay doon boo amul sens mu fekk la sa bàmmeel boo amul sens mu yóbbu la safara am solo ñun nag léegi seetatuñ tur ya seetatuñ ka ñuy tuddee tur wa jikkoom mais ku mën a joxe enveloppe rek kay tuddee sa doom ji koo xam ne ni yàlla seede ne jikkoom dara baaxul ci alalam ja muy joxe sax xamoo fu ko jëlee mën naa am da koo tappale waaye comme mën naa tooy mën naa mën naa tax sa laax yi saf suukar rek nga ne moom laa koy tuddee ba mel ni góor ak siise siise ga yàlla mayoon doom muy ngoro ca kër goro ya dema dema dem bañ ne suba la ngénte li ngénteel taaw amul xar te bu ngénte la jagut say ba yàqu mu sol dàll ya dem ca ilimaan ja ne ko ni nga meloon nag sama baay umpun ma yow laay tuddee doom ji sol kooka jox ko enveloppe bu mën a jënd xar mu solaat dàll ya dem ca borom dëkk ne ko yow laay tuddee sama doom ji kooka yëkkati saa koy dugub ak yoo xam ne mën naa laax laax ya mu dem ca muqaddam ba ne ko yow laa tuddee sama doom kooko jox ko enveloppe bu mën a yewi gan ñaag la ca aju bër set ñoom ñett ñëpp kenn ku ci nekk sol mbubbam man la ñuy tuddee doom ji ñëw toog ilimaan ji noddu liqaam ne ko ku ma koy tuddee mu ne ko xaw koo yéexal ma xelaat sa dafa gaaw mu noddaat liqaamaan ne ko ku ma koy tuddee mu ne ko tuddee ko gaañi siise rek gaañi moom ilimaan a ngi ci muqaddam a ngi ci ilim borom dëkk baa ci gaañ kon ki ñuy tuddee suñ doom dañ koo war a xam xayrul asmaa'i maa ubida aw xumida la yonent bi wax li gën ci tur yi mooy tur wu ñu abdul idaafaal ko kenn ci turu yàlla yi abdurrahman abdul latif abdul jabbar abdul muhaymin abdul ahad wala ñi muhammatal ko ci muhammad wala Hamid ak ca mbooleem turu Seyduna Muhammad ya kon nañuy insiste tur yi di ko bàyyi xel tudd nga reen di nga xar doom ja am juróom-ñaari at su boobaa nag fexeel téereb yàlla bii di alquran jiitu ci xelam mi alquran kum xas nekk ci sa dënn nga koy jàng la gane see timit dana ñibbi hat turu yàlla kenn mënu ci dara nga fexe timit alquran jooju jiitu ci xolam mi na ca continuer bu ko mokkalee baax na su ko mokkalut mokkal alquran du farata waaye mokkal ci nag moom farata la sahaba yi maam xalifa ne fukki sahaba ak ñeent ñoo mokkaloon alquran ki jamonoy sayduna muhammad jamaa alquran almuazama zaydun wa muaasun ubayun ni'mal walaa'u wa abu wa usmaan nun la fi ashraqat bihi lbathaa'u suma minhum ubadatun wa ibnu mas'udin wa man tunma lahu dardaa'u wa aliyun qaysun wa salimun aydan wa huwa mawla saidin fa hum qurraa'u ñii ñoo ko mokkaloon waaye ku la gën a mokkal alquran bu yowmal qiyaama di ko jëfee moo lay gën a kawe étage si aljana yi muy darajaat ya étage bu ne mu ngi toll diggante asamaan ak suuf diggante asamaan ak suuf juróomi téeméeri xat la loolu la yonent wax yow nag boo mokkalee alquran yaay nekk ca étage ba gën a kawe yaay tiime mais kenn du la tiim boo demee ci mbindam alaaji Amadou Dem ci téere bu mu tuddee tafsiru diyaa u néeray ni mu ne xarafi alquran yépp boo ko calculer million la ak ñaar fukki junneeg juróom boo mokkalee alquran yaa ngi dëkk ci million yi étages ak ñaar fukki étages ak juróom ca kaw ñaar fukki junneeg juróom ca kaw ndaw étages yu gudd moo tax yonentu daqa jàngal ndax nga yéeg xara foo jàng rek am nga daragatu kon ku ca mokkal ku la xam teral la sax dugg aljana sa doom jooju nag fexe ba alquran jiitu ci moom mu ëpp solo borom dafa wax ne xool yépp bi ci gën mooy xol bi gën a wattu yiw xol yépp bi ci gën a yaakaaru ci mbaax mooy xol boo xam ne ak yiwa di maam alaaji daan ko doon firée ne xol boo xam ne lu dul njàngam alquran jiituwut ca maalam yes bi alay saru charu jooje moom da ko daan firée njàngam tubaab maam alaaji abdulaa ngis ngir tàng ga su ko defee kon ñu ci bëri nag ñun jamono ji danañ fexe seen doom ya alxuraan jiitu ci xol ba mais lañ cay jublu dañ koy nàmmee mais lañ cay nàmmu duñ ko dagg nga ko cay dugal ci daara ji dama bëgg xel mi neex ñaari weer ñetti weer mu def ba nga kii am naa ci yaakaar ñi génnee ko dugal ko ci leneen waaye di nàmm paaka boo xam ne la nga cay nàmmee doo ko dagg du la jëriñ nàmmee rek te borom internat yépp ñu ngi may déglu ñu ci ëppale quatre-vingt-dix pour cent yi ñaara fa daje kuy nàmmalu lum du dagg ak koo xam ne moom nàmm na ba sonn mënta dagg amatul ci yaakaar mu ne naa tànt sans que daara ja ñii lañ bëri le xale ba continuer mag nga jàngal ko diine mu xam ko ba mu leer suñ problème li tax xale yi naqaree yar da ngay dem ba nekk ponkal nekk intellectuel waaye billaahi maqaama boo mën a am bu buñ la taxawoon laaj la farata njàpp xamoo ko ak ñoo bari ay intellectuels yu réere seen diine nga laaj leen sangum janaba xamuñ ca dara nga laaj leen boo rukkooxee looy wax xamuñ ca dara ku mel noona nag diplôme bu ne am nga ko sa diplôme diine amoo ca dara soo lëggee du mën a baax du baax dañoo bari ñu réere seen diine tax Sénégal réew mu bëgg diine lañ waaye yàlla dafa ñoo nattu ñu bari ci ñun dañoo réere diina ja soo bëggee loo réere nag ku ñëw nax la ca te kon faw ñi xiirtal suñ doom yi jàngaloo leen diine ñu góor ñi ak ñu jigéen ña jàng dafa am solo ci nit waaye nit ki bu jàngul moom nit ki bu jàngul moom ak bàyyi ma yi ñoo yem te kon faw ñu sonn ki jàngal suñu doom yi jàngal leen maanaam seen diine ñi xam ko bu doom ja demee ba jàng lay wër sa gëm ci diine xam na dara waaye gannaaw bi xamee dara na nga ko dimbale orienté ko mu xam dara ndax jamono ji loo xam-xam boo amul li nga xam kenn du la ko laaj waaye li nga xam boo ko defee ànd ak xam wan ak am yàlla mën na laa dimbale ba laaj la ca man laa laajale li nekk sa poos waaye boroom xam-xam boo amul dara soo moytuwul kenn du ko laaj dara xalifa yu Baara Ibrahima bi ñu mujjee toog dafa ne ma ñas maa ngi leen di defal ab dog dog bi nag jubaliwuma ko ci dara lu dul yàlla yokk seen wërsëg ma ne ko ñas de ci sama xel soo xeboo yokk ko dëgg dëgg ñàkk dafa metti Aziz bi ma ànd ak sëñ Aliou Sall maag moom mu ne ma doom dañ leen di ñaanal wërsëg da ngeen di dund ci jamono joo xam ne lu ca nit am am xam-xam am diina ju sell wallahi da nga see wéet doo xam ko la ko jàppale comme xamoo dara waaye bu ca nit yoree wërsëg lu diina ja taq-taq suuf ak lu ñàkk-ñàkk xam-xam bu ko yëkkatee xam ñu ko ci jàppale kon jamono ji jamonoy am la ndax ji lu waay def nga xas ko ngir ak ñàkk ki am bu ko defee nga tagg ko da ngay toog a toog ba minuit benn waay ju amul dara woole téléphone nga coupé ko ne kii moo ñàkk xel heure bi ku ciy xoote toog ba minuit ñi ñi war a tëdd muy xoote nga toog ba une jëm deux boroom alal ju mag yëkkati numéro am nga ne kii de du nelaw guddi kii moo baax billaay deux heures du matin la di ko bàkkoo xoolal yaa ngi dara moo tax nga ñàkk nekk ci koñ bi am yitte xale bu la romb nga yëkkati ko jëndal ko tàngal kafe ko bàyyi ko mu dem ah ñi ca koñ ba ne ni mu ñàkkee fayda war a dem liggéey nekk fii di fooye xale yi rek ki am moom def ko xale bu mu romb yëkkati ko jëndal ko tàngal ko fak ñoom ñu ne billaay kii ni mu baaxee xale sax mën na koo xendaloo ci àll bi li a tax kon lu nit def ñi xas la ngir ak ñàkk soo ko defee ci am ñi tagg la moo tax Omar daan wax ne ku ragal ñàkk laa su ma gisoon ñàkk muy jëmm fu ma dajeek moom fanam xem fa ma ne waroon na koo rey sax ndax ñu ñoppalu yonentu bi ku ragal ñàkk la mosta yeewu benn bis lu dul ba dana muslu yàlla ki juróom juróom ya lott ca la bokk juróom ya tayal ca la bokk juróom ya ñàkk ca la bokk du tëdd mukk timit tamit ci juróom yooya kon ragal na ko yàlla sax bëggul ñàkk ba ko gaa yi tuumaal na yàlla dafa ñàkk mu ne déedéet yéen ñéenee ñu ñàkk man maay ki xoomal mu tax bokku na ci turam ya sax alxaniyu kon xam-xam na solo yàlla nañu yàlla may kon orienté nga ko xam na mais orienté nga ko am na bi ci des nag da koy teel a yenn responsabilité soo yoree doom bëgg mu am jom koy gaaw a yenuloo responsabilité mais léegi ñu lu tax suñ ndaw yi naqaree defar da ngay dem ba nekk mag nekk ponkal te doo xenu responsabilité taxaw am 40 ans dem ba am 35 ans takkoo soxna paabee la jox néeg booy fanaan mooy fay courant bi mooy fay ndox mi seeliri bunt ba bu yàqoo sax doo ko defar làmp ba sax bu burlee doo ko defar nga toog a toog ba léegi nga ne ah man xale la maa ngi door a marié duñ marié bu yàgg ngaa tardé rek yaa doxut te loolu du jeex day dem ba paa bi mujj sax nekkatul fi continuer di la yor loolu lépp li koy waral ñàkk a teel yenu responsabilité waaye nit bu teeloo yenu responsabilité la baayam yenn woon mu teel koo yenu dana respecté baayam dana fonk baayam dana ko xormaal dana ko teg fi place ab baayam ba moo taxoon mag ñi di teel a yenn seen doom ya responsabilité xoolal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yàllaa ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ñaar fukki at ak juróom la am dem takki soxna te booba baayam génn na àdduna yaayam génn na àdduna maamam abdul mutalib génn na àdduna te la soxna sax soo ko doon évaluer ci suñ jamono ji mat na trente million ñaar fukki gëléem la ko la ko canee boo ko daan jaay gëléem gu baax mbaa huit cent mille parce que day dem ci vingt millions maam xalifa ne kaafu niyaqin la nga jël tëmbi wurus yi fukk ak ñaar ci ay libidoor kooka boo ko doon jaay ëpp na quinze million wane ne teel a ñàkk baay terewut a am jom teel a ñàkk yaay terewut a am jom ku góorgóorlu yàlla dimbali la mu dem takk ndaw soo xam ne moo gën a riche ci Makka ñépp moo fëpp alal moom mu gën a néew alal ci dëkk bi dem song ko cenee ko lu mat 30 millions juróom ci am jom naka noonu Cheikh na Tijaani mi radiyallahu anhu dafa teel ay enu responsabilité teel koo yen njabootam ga fukki atam ak juróom benn la am takk soxna ñu takkal ko soxna fukki atamak ak juróom benn mu takk ñu teg ca fukki atam ak juróom ñaar yaayam ak baayam yépp bokk génn àdduna ci même at ci même semaine ci même bis sëy ba benn at la diire mu ne damay jàngi kuy jàngi mënta ànd ak soxna si soo ko defoon fii sax gaa yi tas ko foofi bàyyi woon soxna dem moodu moodu ji boo fa amoon fukki at soxna yi muñ buñ muñ sax ña ña nga ñëw yaakaar ku leen mosal di leen muñ leen muñal kat ku sa jëkkër tukki kat neexul bala ñoo yàq sa der bi waaye ku fi takk soxna dem jàngi ñeenti weer ñi tas ko ne kuy jàngi ko ko mën a xaar nit ñi kon kenn xamul liñ bëgg xalal rek xalal rek loo leen teg lu condition ba diis diis bu àndeek alal ñi muñ ko loo leen teg lu mu jub-jub ak lu mu woyof bu àndeek sariya ñi maanaam ñi teggi ko ñaataa fii tukki fukki at ak ñeent ñii ñaar fukki at ñi bàyyi seen soxna ya léeg wax ma ko ma ah métti na de di huti luñ lekk ba xañ la ko war a lekk looy huti luñ lekk rek yow nag xañ na la doom yu ko war a lekk soo léegi boo fi bàyyi ko doomi jàmbur yee koy lekk kon indil sa soxna mbaa nga ñëw man cee am njaboot boo fa amoon ay milliar li nga waroon a am ci ay doom ñu waroon a jàng nekk ay cadre mokkal alquran mënoo koo xam foofa moo tax Umar ibnul Xattaab bi mu toogee ci xilaafa gi wate décret ku dem arme juróom-benn weer na ñib si giseeg soxnaam door a ñibbi boo demee ci fiqhu na wala nga dem ci fiqhul waadi sa ñeenti weer la wax gannaaw bi ko laajee loolu lépp ñun ay ay ay nañ ko suñ yoon suñ bakkan lañ topp ak te lii mi ngi leer naa naññ yonent bi jàngale ko kon doom dafa gaaw a war a enu responsabilité soo yoree doom daal jàng na lay wër sa gëm ci xam-xam am na ko mu commencé ut liggéey doonte tele 1000 francs lay am wala mille francs par bis rek takkal ko soxna dootul amati jot fu muy yàqoo maam alaaji maal dafa ne bëree ba mënoo leen a tere ñi mooy yàlla da ngay fexe ba bu am jot nit ki bu amul jot fu muy moyee yàlla yaa ngi fi bàyyi soxna soo xam ne bët bu set gaas baa ngi lay karawaase ak saako ceeb beeg facture dangay da xëy takk sa dàll yi bala ngaa ñëw doo seetaan télé fa ngay seetaan télé sax foofu ngay nelawee foofa doo tala yàlla waaye yow kër gi amoo fi lu sa jiin sa dàll yi yaakaar passion wu luy lang sax soo ko mënee jël jël ko bu la neexee heure bu la neex ngay nelaw nga gis koo xam ne tey mi ngi ci digg kartanam toog a toog a toog ba côté minuit muy dox ci lu kenn xamut mën a dem ba trois heures muy tóor ak nelaw balaa yeewu midi passé bu xëyee teg baraada bi di ataaya ba cinq moo tax su may seetaan ñu ne xaw ma temps mort ma ne ñun dund mort lañ am suñ dund bi billaahi liñ ci perte ku ñu ko delloo waatoon dañ ci mën a tabax lu bëree bëree bëri dañoo bari temps mort temps bu dee yendu di wax fanaanoo wax fanaanoo di wër te la ngay nekk kenn fayu la ca dara si Ahmed Tidiane si almakatoom mu ne Sénégalais laa gis mu ñàkk fulla bu day ni nekk entraîneur di entraîner ab équipe te yow kenn fayu la dara nga nekk fi di entraîneur buy entraîner am mbër te kenn fayula dara da fiy toog balaa équipe ba football nga ne yee eh, li ko ci mën a génnee 4-4-2 rek wax a wax ba ko te kenn fayu la dara bëre bi ñëwagul yaa ngi entraîné ne li ko ci mën a génne na cokkaas rek xaar ko lu mu xam jël kii ne déedéet na ko songu rek wax wax ba xotteeku dara tax Sénégal yi yàllaa ñu nattoo wax ju bëri tax moo tax benn waay ne boo demee aljaana ëllëg buñ demee aljaana foo dégg coow la gën a bari rek neel fa la Sénégal ya nekk fa gën a bari coow fa la Sénégal ya nekk na fi àlla xoon wala kisaaban dal ñu fa kon jar na bàyyi xel temps dafa foor billaay boo xoolee sa internet bi li muy jël ci temps nga xëy rek connecté wu fekk yow ñàkk nga connexion bu yàgg bés di xool rek bës di xool rek kër gu am wifi rek da gis xale yu góor yi ca buntu kër ga ña nga di bës di xool rek mën nañ faa def 30 minutes léegi-léeg sax ma gis fa ay xale ca kër ga ma ne ko dooma dimbale nga dem jàngi ñaari hisib ñaari hisib mais li mu jël ci temps mënuma la koo wax mais duñ ko yëg da ngay dem nag ba fa nga waye fa nga war a yegg soxla sa temps bi fekk sànkoon nga ko koy door a xam fu nga ne nii ku la ko wax sax mer te temps dafa fort kenn du ko sàggane temps dafa bëgg nga sànk ko ci ñaar sànk ko ci dërëm boo wuti dugal ko ci sa njaboot mbaa nga wuti ko ci yiw woo jiital ci sa bàmmeel foo rey sa temps fu dul ñaar ñii perte nga bu la ko kenn jaral bul nangu kenn di yàq sa temps bi ci wax ju du wax ju ko jarut nekkal ci li nga war a nekk rek soo ko defee lu sa dund gàtt-gàtt nga am résultat waaye da nga fiy nekk naan xale la suñ mag ñi yaa ngi dégg tey kii li ki wax maam Khalifa Niass fanweeri at fekk na àjjana mag ñaar fukki at ak ñett mbooleem xeeti xam-xam yi làq na ko di taalif ay téere ci kanam baayam moom wax na ne musumaa toog di xaar nelaw lu ne ma cay nekk rek ba nelaw fekk ma ca ñun nag ñooy provoqué nelaw yaay fay la taal cuuraay li commencé fudd gëmmu yaa indi nelaw yi waaye moom mosu koo def lu ca ne rek dafa cay ne ba nelaw fekk ko ca mu sirtu urdu wa ubsi fii xubbi xayri rijaali wala usiqu li aslin fii walastu ubaali kon lu jara bàyyi xel la suñu temps yi nañ koy bàyyi xel di ko sacrifier ci li yàlla bëgg waaye foo toll nga naan réew mi doxul réew mi doxul te yow mi koy wax doxaloo dara dox yaa ngeeg sa ponkalam kartan am nga doole nga ne liggéey amul demal liggéey lu ne mën nga caa liggéey demal port ba nga yenn ji saako demal jaayi tàngal mbaa nga dem jaayi soccu walla nga dem jaayi leneen lu nit nekk ci métier bu ko bu yàlla teral ko ca waaye da nga fiy nekk sa temps bi dem liggéey amul nga xëy di nelaw yendoo nelaw taal taal ataaya ji sa temps biy dem nga ngay gën a ñàkk kartan dem ba am ñeent fukki at mënoo takk soxna wala boo takkee soxna amul loo ci man a def fooy dem mel nii waaye kenn ku ne la nga am mu tuuti mu bëri billaahi boo ko toppee fonk ko yàlla keral la ak lu mu tuuti tuuti kon xale yi nañuy nangoo gaaw a yenn responsabilité yërëm sa baay fekk sa baay xëy tabax kër gi di joxe dépense di sonn kartanam dem na yaa ngi sa digg kartan dimbale ko dem liggéey loo am ne ko papa jàppal ci lii xelam dal waaye gannaaw loolu tamit ni ñu fexee Cheikh na Tidiane fukki li ko baayam yi lebal moom la fay doomam yi taawam bi Mouhamadul Kabir fukki xatam ak juróom ñett ci la ko takkal soxna Mouhamadul Habib fukki atam ak ñeent ci la ko takkal soxna lii ko ko def foo yàqoo da ngay gaaw a yenn responsabilité noonu tamit ni nga teelee takkal sa doom yu góor yi soxna li ma d'accord tamit sa doom yu jigéen ñi nang leen teel a dugal néegu sëy koo gis yaakaar ko rek soo ko mënee yore sax jox ko ko ko ko yoreel sax jox ko ko ndax jamono ji yàqu dafa bëri booy nekk fi yore jànq boo xam ne am na fanweeri at ak nangam ak fi jamono ji toll bala maa dee foo dem ñu naan mariage précoce di bëgg rey nit ñi yonentu bi fu mu takk soxna te moom la ñu yàlla royloo ki mu takk Aysatu juróom benn at juróom-ñeenti at ñu jébbal ko ko te ne moom la ñu war a roy nga ne ak kook yonentu la kenn mënu koo rey léeg-léeg ma dégg ci télé bi te yow mi koy wax tegoo ko fenn téere yi ko loolu bokkut ci boo waxee loolu sayyiduna Ali bi ko yonantu bi may sayyidatuna Fatima mi jur Xasan ak Xuseynu Fatimatu 15 ans la am uqidat fi samaai ama aydin min siniha kama hakal qudamaau fukki atam ak ñeent nga nekk fi mariage précoce mariage précoce te yow mi ko wax mënoo tere njaaloo précoce loo cay wax beneen problème la ki ngay bañ a teel ma ngay def lu bon kon nag yooyu jar na bàyyi xel yal na yàlla defal ñu tawfiq thème bi mawduu bi ma doon yar li ma ci bëggoon a wax yëpp waxtu wi dab nañu dama koy tënk rek ci xasida bi yóbbaloo ko daara ji ndax jotaay bi neex na ma lool yëg naa ne saf na daara dama wax ne yar inna taadduba kënsun laa yuqaasu bihi jammun min al maali aw kënsun min al dhahabi xudita adduba faada lahu fa huwa silaahu fala isun bila adabi fa bi ta addubi taalu fawqanaa niamun wa taxtanaa mithlu faydil baxri fi tarabi inna taadduba miftaaxun idan xalaxat abwaabunaa jaa xallan waafiya talabi fa qiimatu lmari fi cilmin wa fi adabi wa man xalaa minhuma yaxyaa ala atabi man lam yakun nahja tadibin bi manhajihi fala najaaxa lahu min axtaril kurabi ma ahadun minkum ila nasabin fa innani muntamin dëhran ila adabi fal intisaabu bihi aqwa wa afdalu min majjin wa jaahin wa daawal faqri wa nasabi salal ilaahu ala man kaana addabahu rabbul wara fartaqa fi ahsani rutabi xaqa qadri wa miqdaarihi alazim